goo xamante ne tàmbale naa suux ba ñëpp jàpp ne Pastef moom c'est fini euh, mbir yi jafe ci seen côté seen militants yi nekk en prison euh, seen parti yi ñu tas ko Ousmane Sonko ñu jàpp tëj ci kaso bi soo analyser ji moment boobu da ngay jàpp ne Pastef suux na mais comme par magie euh, ña nga xam ne ni ñoom ñoo jàppoon ne Pastef suux na ñoom ñoo rocceeku ñoom xëy na ngir continuer exister ñoom ñoo mujj suulu Pastef mañ jàppoon ne moom moo suulu moom moo fi mujj nekk à la tête du une bonne question. Mmh. là ça c'est très important sa laaj. xam nga mhm. foo ngay gëmee dañoo jaawale idéologie bu nit gëm ak parti politique bu nit di politiquer. Mhm. xam nga socialisme démb idéologie la woon. moo tax socialiste yi toog nañu fi pendant quarante ans. ñu mhm. exercer idéologie bi. bés bu ñu roccee ko ci seen idéologie la ñu disparaître ñoom. parce que booba ci transhumance la ñu nekk ay tappale PS maanaam parti maanaam socialisme en tant que idéologie. bi ñu koy incarné dañoo existé woon. mais bi ñu demee ba dugal tappale nekkatul ay affaire u idéologie dootu amatul école parti. Uh-huh. ka nga daan dégg fii école parti daa nga dégg. école parti déggatoo ko. fii uh-huh. da gis gars yi comme weñ fu tooy ñu takk. Pastef nag foofu la wutee gars yi idéologie la. gars yi mm-hmm. jàpp ne boo faagaagalee jëmm yi. xalaat bi day dem attention. Uh-huh. gis nga idéologie boo reyoon ñëpp day rester. même ñuy judduwaat dañuy ñëw. Uh-huh. parce que doolu woon ay nit foofu la état bi def erreur ay nit la toppoon fekk xalaat la te xalaat bi pour nga rey ko. mais il faut nga da ko toog cinquante ans. wala uh-huh. cent ans pour nga éliminer benn xalaat. del xool sax yenn euh, robele yooyu nekk ci yenn gox yi. Uh-huh. dañ ko gëm comme idéologie moo tax pour fay xeex bi day jafe moo tax gis nga geeru geeru religion ak guerru ethnie fu mu tàkk du gaaw a fay parce que idéologie la. Pastef idéologie la woon état bi di jëflanteeg ay nit. Uh-huh. idéologie mosul dee. bu loon Sonko di keneen parce que mu ngi ci biir deretu ñi uh-huh. moo tax ku demoon ku Sonko yebaloon laa wax. da ngay jàll parce que xalaat bi la. Uh-huh. du nit ki. loolu moo dal Bachir bu nekkoon keneen day jàll kon effectivement gars yi nanditewuñu li ñuy xeex parce que dañoo jàpp ne gis nga ni Sonko réussir ci progresser ci discours am. gars yi naan noo xamul dara muy progresser di convaincre di ba koy dangaa gis kuy xeex ngir Sonko te xamu ko man mii xamuma Sonko tëj nii ma ngir moom man nga yaakaar nit mën naa toj sa mbopp pour nax ma c'est pas facile lu ma dem benn ci caax nii am na lu ma yàlla yëgloo parce que damay analyser xam fu ma jëm. loolu bokk na ci lay wan ne affaire bi c'est grave xoolal lu mel nii Pastef kañ nga mës a gis parti mon frère bu Sénégal nga gàtt fan nga gudd ko. Mhm. nga mag wal nga nekk xale. ku si nekk ci société bi yëpp ñu ngi ci biir Pastef paa yi da jaral dee mhm. maire yi mu jaral leen dee jeunes yi mu jaral dee góor a jigéen nag nest pas ba ci biir soldaar si ñuy maanaam sëriñu daara yeeg soldaar si ñu bëgg mu dal ci Sonko sax ñoo mhm. leen gën a bëgg Sonko pénitencier yi ñuy garder Sonko ñoo leen gën a bëgg Sonko da nga ko mës gis ci leader politique kon yëf yi du woon nit idéologie la moo taxoon ñu jàpp ne dee na revue de presse yi nga daan dégg jamono jooju. suul nañu Pastef Ousmane Sonko tëj nañ ko. booy yi nangootuñu xeex dañu doon sóob fekk xamuñu li xew. yëf yaa ngi nelaw ci deretu booy yi. Uh-huh. te gis nga bu ñu bu nguur gi juumoon ba bëgg confisquer nguur gi da nga gis leneen heureusement heureusement. Uh-huh. xam nga gars yi xamuñu gravité bi nekkoon su Macky bëggoon insister. Uh-huh. ñaanu ma ko yàlla. mais oustaz oustaz la doon wax. ba ñu teg la ci teg teg la ci loxo ne la mm-hmm. appel à l'insurrection ba mm-hmm. daanaka nga nattu bi dal la ci euh, soo analyser dafa mel ni au dernier moment Euh, comme li ñuy wax il n'est jamais trop tard. Mm-hmm. dafa mel ni au dernier moment wax ja nga wax bañ teg la ci loxo dafa mel ni moom la président Macky Sall comprendre parce que finalement euh, kenn forcé wu ko ne ko libéral Ousmane Sonko kenn forcé wu ko ne ko libéral Bassirou Diomaye Faye kenn forcé wu ko ne ko jàppal datu élection yi wala euh, na am dans la plus grande transparence parce que man conseil dafa mel dama doon conseil comprendre lu ma ñu jàpp ma mais la ma doon wax lañ mujjee def. Sonko bokk na ci nii wala ci naa ne na soo yi te lool naa leen doon wax day bokk te day gagné te bu bokkul gagné lii man lii day am. et pas ma ne gars yi dem leen saccager dëkk bi. Uh-huh. non bokkul ma ne moytul lii day am bokkul ak demal saccager ji parce que ay calcul la. ku ne xam nga lu gàtt kuy liggéey ci courant xam na ne am na fii yoo xam ne bu la coupe circuit. <laughs> léegi fii uh-huh. la boo ko xamee calcul la du affaire mathématique la c'est facile mais après mujj nañ ko def. xoolal nag dañoo toog buñ ñu gën ma ne xoolal coono gi nit ñi daj yëpp xoolal fi ñu mujjee ak ñun. Uh-huh. kon jaroon ñuy rey nit ñi. jaroo ñuy tëj nit ñi. di ñàkkaloo liggéey di yàq ceru ñeneen ñi sëy yi tas nañ ci ah affaire bi sëy yu bëri tas nañ ci xale yu bari ñàkk seen liggéey maire yi jooy ba seen xol yi tànk am nañu seen xol seddagul ba léegi. Mhm. tout ça après pour ça quoi. Mhm. mu xëy rek dëgër bopp ba jaaga dem bàyyi ñu fekk problème yoo xam ne kenn xamul ñaata la. Mhm. est-ce que jaroon na ko. est-ce que jaroon na ko nguur est-ce que jaroon na lii. moo tax yàlla soo bëggee jaay doole ñëpp mu ne la non man maa mérité jaay doole ñëpp te defuma ko. moo tax ñu nga yàlla dama toog ba ci ak keroog ma ne gars yi xoolal trois ans la ñu xeex Sonko ci deux semaines la ko yàlla réglé. oui trois ans yàlla réglé ko ci deux semaines. way mm-hmm. da nga xëy ne gars yi waa ji day génn mun la génn ma di nga génn par la force man damaa jékki ñu ne ma man dama toog di añ. Mm-hmm. le jeudi là damaa mm-hmm. toog di añ man kese man ma jour rek man man mën a añ sax parce que gars yi dañoo ñëwoon di nelaw quoi dañoo dugg cour di nelaw ma ne non man du ma leen yee. suñu yeewoo añ quoi ma commencé lekk tuuti rek ñu fëgg ma oustaz ma génn. takkal say bagages juge bi libéré na la. comme sax comme sax après loo ci man te lu ne bi ma agsee ñetti article lañ ma jàll. Uh-huh. juge bi dóor na ma ñetti article man damay fàtte sax. Uh-huh. li ma bëgg wax ne man maa ko def ma ne ko non man def ma loolu. man nekkuma di leen menacer dama doon alerter mais ñu ngi bëgg rek ma accepter li ñu may wax. pour question sax léeg-léeg ñu façonné ko pour jéem la dugal mais comme man maa ngi am ay conseils ak ay avocats. dañ uh-huh. wan yu bëri quoi. mais après anañu képp ku ñu doon gérer saal boulot te yaa ngi koy regretter. Mhm. moo xam juge nga moo xam militaire nga moo xam gendarme nga moo xam policier nga moo xam pénitencier nga tey anamu tey. Mhm. gis naa xamal lan jaxati toog naan. Moustapha Macky nan lay def Moussa Fall nan la may defar ak. yow yaa moom mooy toog naan Macky Sall la bu bu la mënee ren di jàll da koy def de moo ko daan wax. moom moo toog di gisee waa ji ne kii bu bu gisee intérêt da lay ren di jàll ba pare nga topp ci waa ji. di ko soutenir yow. mais la ca fekk yow laa la fin. Mhm. kon ala xamoon nañu ñan la ñu amal affaire mais malheureusement ñoom xamuñu ñan la ñu amal affaire ñoom. Sonko dafa xamoon ñan la amal affaire. Mhm. mais gars yi xamuñu woon Sonko mi ñu amal affaire. d' accord mhm. alors yaa ngi koy euh, junj léegi ci sa biir wax euh, compagnonnage boo xamante ne amoon na entre homme politique yi Ousmane Sonko ak.